mbokki jullit ñi mbokki talibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo bu baax siyaar leen jox leen seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo yooyu ak siyaar yi kilifa diine di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi bu baax a baax mu mel ni nag tey dañoo ñëw fii ci chaîne bi nga xam ne moom la ñuy wax SSTV fas yéene leen fee indi lu ama am solo muy taxawaayu ndaw ci diine ñu war cee ànd ki nga xamante ni mooy suñu kilifa di sëriñ Moustapha dañ koy bàyyi rek moom mu daal di nuyoo incha allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانصر علينا رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والاكرام مبك جوليت نيغي لين دي نويو بو باخ دي لين سياري بو باخ دي لين بال اخ تي ديكو ساكو سين نيغي في سي اس اس تي في دي واج ايميسيون بيغا خامني موم لا نيو واخ تخواي نداو سي دينا نيغي سي اندك اك شيخ ابراهيم دي indi lépp lo xamne mom la ndaw di aajo wo ci biru dinem amna ay sunu magni ñi bind nañ ci téré yu bari nga xamne ñu may wax ci wàll woowu amna ci cheikhul khadim wax ñu ba ci ibrahim jukki yoro jeuf seigne Moustapha comme ni nga ko waxee rek cheikhul khadim dafa wax ni ya ayyuha sibyanu la tastahilu anil huda wa bil bilolu mustahilu kon inshallah kep nga xamanteni ni xam-xam it teel na la inshallah nang ko xaar fi fi lay amé ci STV assalamu alaykum wa rahmatullah